الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من سيرين سالو غي دك لوغا فاسيني جانغ خسيد اك من سنني من سنني خير قديم المصطفى فانني اقديمه بمصطفى من سنني غير قديم المصطفى فإنني أخدمه بما استفاء أخدمه إلى دخول الجنة دار الخرار والمنى والمنى من ظن أنه يكون أبدا يرضيه بالذي كخدمتي بدا fa xarrahu dalaalu wal idlaalu yanxaadu lii minhu bihil xalaalu madaxtuhu xablu la daali barwali madxan wanaa an mislihi kullu wali madaxtuhu madxan la daa maayoon baa ما عيوبي وقف الزنباء مدقته عند أناس قلوى مدحا كفاني العدا والبلوى مني إليه خدمة قد لازمت روضته إلى الخيام عزمت رضي عني سبته جيلاني عليه رضوان الذي أعلاني رضي عني سبته أبو الحسن عليه رضوان يقلد الحسن رضي عني سبته تيجاني عليه رضوان مبيد الجاني رضي عني خلفاء الأربعة واسترد المقربين متبعا من لم يكن عني يرضى فالكريم رضي عني رضا ليس يريم جزا الإله المصطفى خيرا جزاء kama taqabbala wa waxdan jasa salatu man karramuhu yalxaani ala lazi duna almira alxaani borom tuuba ku faatu yaa fay teew bu nu koy jullee nga di fa teew nuy nga ànd ak ñoom di teew ñu dem nga des tontu layam borom tuuba waxtu wa ñii xëccooy dërëm xaajub sëriñ si di xërëm la bàmba jublu woon borom mu fàttay du am moroom xam ngeen ni seex bàmba du nit te ñi ko gëm ñoo jéggi nit ñi gëmul sëriñ tuuba ñoo manqué nit jëmbam ji mbàkke nax na nit sëriñ tuuba lu mu sa moo ko nit ku mu sa ñëw moo doon sa njiit moo tax ku gëm na amu fit te xam ni Bàmba mat na njiit Sëriñ Tuubaa liggéeyal yàlla moo ci sut tagg rasuulu moo ci sut moo tax ngëneel yépp moo ko fat ku teggi Bàmba doo rafet nan sant yàlla lu ne xas ci lafu Bàmba la nu fas moo tax nu teewe lii nu gis te di ko baamu mu fés ngir bu ko sooboon du fi ñëw mbaate mu sob ko du nu ñëw mbaate nun nu ñëw te fi aw bu leen di yedd waaju bañ sëriñ tuubaa na ngeen waaju ko foñ yowmal xiyaam amu fa añ ku sopp bàmba rek a sañ sëriñ tuubaa ñi njëkk a ñëw te di nelaw yow mu mujjee ñëw te doo nelaw di tagg nabi doo selaw yow rek a jar bañ a nelaw subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuuna وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك برم توبا